des Tidianes sëriñ bay Sy Mansour ci taxawaayam ci discours am waaye di beral nuyoo Serigne Maodo si Dabakh ci ay kàddoom yu mu yëkkati mu doon kàddu responsabilité di gërëm kilifa diine yëpp sëñ mu Mountakha Mbacké yàlla na ko fi yàgg bàyyi yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg fi téwér sëñ Maay Ñas xalifa diine yëpp waa kër maam Limaamu Laay kilifa diine yëpp ñu ngi leen di gërëm seen taxawaay di leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla bàyyi leen fi waaye aussi di féliciter encore une fois président de la république ci participation sommet g nga xam ni am na retombée wóor boo xamante ni presque six cent milliards de dollars pour l'Afrique mu liggéeyal ko continent bi loolu dafay jaadu ñu taxawu si sant ko ci féliciter ko ndax dégg naa ni participation am ci g boobu sax am na benn waaye boo ko doon ŋàññi démb waaye moom li ñu koy wax mooy na naan glace te xam ne ndam yi jeexagul gannaaw loolu ñu ngi remercier les forces de défense et de sécurité li nga xamante ni ñoom ñoo téye gannaaw yàlla ñoo téye jàmmi réew mi ñu ngi leen di remercier di leen féliciter encore une fois di leen réitérer sunu engagement ci seen gannaaw muy police ak gendarmerie ak armée di ci beral nuyoo général Moussa Fall di ci beral nuyoo commissaire directeur général de la police nationale Bokar Yàgg point de presse bii nag li tax ñu gën ko woote mooy c'est un moment de célébration de la victoire de l'état de droit sur l'anarchie c'est un moment de célébration de la victoire de l'ordre sur le chaos mais c'est un moment de célébration de la vérité sur le mensonge ndax yéen ñëpp gis ngeen ni jamono yi yëpp am na ñoo xam ne danoo taxaw tëcc pour indi fitna indi pëccëxoo indi insurrection ci Sénégal waaye sénégalais yi comprendre nañ ni njaboot jàmm mooy gën ci moom président de la république bi nga xam ni mooy ndey mbili jël disposition yëpp pour assurer sunu sécurité te li fi xew démb mooy dafa amoon ñu bëggoon jóg taal réew mi waaye ci taxawaayu état dañoo dellu gannaaw dañoo sàqi ni ko mbëri di waxee waaye jeunes yi dañoo jënd glace jënd glace bi nag dégg naa ñu naan dañ leen a ñaan ak kilifa diine yi ñoo leen ñaan ak ma xam nga moom mbër bu daanoo foog mu wax ko daaneel wut alibi kenn ñaanu leen kenn ñaanu leen danoo sàqi danoo daw comme des lâches c'est ça la vérité kilifa diine yi wax ñoo leen ñaan ñoom respecté wuñu kilifa diine yi ñoom ñooy saaga di saagalu kilifa diine yi fii ci Sénégal respecté wuñu kilifa diine yi respecté wuñu imaam yi te ñëpp xam nañ ni ñi di saaga kilifa diine yi di wax lu bon ci kilifa diine yi ñoom ñooñu la ñu àndal donc buñ ñu wax mukk kilifa diine yi ñoo leen ñaan ndax ñoom déggaluwuñu kilifa diine yi faalewuñu kilifa diine yi lijjantiwuñu kilifa diine yi ñoom seen projet bu anto kilifa diine dootul am Sénégal ci loolu la ñuy liggéey donc buñ ñu wax mukk ni kilifa diine yi ñoo leen ñaan dafa am lu ñu ragal moo tax ñu dellu ginnaaw te xam ni bu ñu génnoon démb dinañ xam ni bési góor a koy bay président de la république loolu dañ ko ci ndokkeel ndax la mu waxoon def na ko moom dafa ne woon li xewoon mois de mars dootul xewati Sénégal te élection yi dana am te moom dootu ci waxaat moom bu waxee ren balaa muy wax di déwén waxam bëriwul li ñuy wax naan bu jëf ji bëree moom la waaye bu wax ji bëree du moom li mu leen waxoon moom am na mooy du fi amati gannaaw ndam loolu nga xamante ni démocratie am na ko état de droit am na ko dégg am na ko ci kaw mensonge dégg naa benn waa joo xam ne mu ngi naan confrontation dina am et c'est pas à l'État de déterminer la moment et comment damay wax rek ne ko ñun confrontation taxu ñoo jóg ñun dañu jóg pour liggéeyal Sénégalais yi ñun suñu yittee suñu yittee du xeex suñu yittee du taal dëkk bi ñun liggéey Sénégal moo ñu tax a jóg ñu ànd koog président de la république Macky Sall waaye nag képp koo xamante ni confrontation nga bëgg ci taal réew mi bilaay di ko am te di fi fekk lu dëgër ndax état bi du yàqoo ci Macky Sall président de la république damay faral di wax ni président Abdou Diouf ci moom laay tàmbale ñun ñëpp d'accord nañ ci ne moom toogam fii ci senegal liggéeyam fii ci senegal li ci ëpp du woon tabax ay infrastructure du woon tabax ay auto defar ay autoroute du woon tabax ay immeuble waaye liggéeyam ci li ci ëpp mooy li ëpp solo ci am réew mooy defar un état fort te def na ko dañ ko ci delloo njukkal di ko ci gërëm di ko ci sant ndax Sénégal yëpp amel nañ ko jukkal bàyyi na fi état bu dëgër boo xam ne ab Ablaye di yàqu ko te bu kenn xalaat mukk mu yàqu ci Macky Sall réew mi kenn du ko taal. loolu dama bëgg mu leer ci bopp ñëpp képp koo xam ne nag confrontation nga bëgg diñ ko am bu soobee yàlla ba mu doy sëkk ndax da cee am particulièrement l'agitateur de Yewwi ki mel ni ñebbi ci cin xamul fu muy toog ndax moom xam na li koy xaar et li ci kanam raw li bët xam na li koy xaar moo tax fépp fu mu dégg ni sax mën nañ ko faa rey dina fa dem ndax lii ñëw ci moom xam na ko te loolu gor su nekk ragal na ko te am na dund boo xam ne dee ko gën ñun xam nañ lu muy dund xam nañ il ne vit pas au fond de lui-même dundul moom xam na loolu on compatit en tant que góor sax ñun on compatit xam nañu dundul il a très mal il souffre waaye na ci boole yar ak teggin xam ni mënta yëngal réew mi il est trop petit pour sax trop on compatit ndax ponkal moo xamante ni da yor ñaari jeeg ñaar ñëpp dem nañ mënatoo Sweet Beauté tëj na mënatoo vider loolu nag ngeen baal ma mais dañ koy masow on compatit ñu ay góor lañ moo tax mu agité noonu mel ni ku dof mais on compatit réew mi daal li ma bëgg a wax encore une fois di ko baamtu mooy képp koo xam ne ak koo mën a doon yëngal réew mi mooy sa yitte ci loolu ngay jóg teg nañ ci sa bakken te lu mu jar dinañ ko def duñ ci teg suñu bakken yi de ñun sunu bakkan yi duñ ko teg waaye teg nañ ci sa bakkan yow mi bëgg a yëngal réew mi te fu mu yem nag neex te wax naa ni ngir jàmmi sénégalais yi ngir jàmmi sénégalais yi ngir sécurité sénégalais yi dafa am loo xamante ni bu fa àggee tëgg ndënd ak semmiñ la war a doon neex benn naqari benn mbir mi fin mi ñaam jàmm Donc, chers amis, comme je l'ai dit tantôt, célébrez, célébrons la victoire de l'état de droit sur l'anarchie.